ci kanam d'accord ma ñëw ci préparation mystique bu ñaari ñaari mbër yi mu mel ni ci gën a vee ci côté mystique par rapport ak entraînement parce que yàgg nañ ci géew bi ñaari mbër yi. waaw pourtant nag euh, kii Balla Gaye Balla Gaye ñi mu doon indi ba daan Modou Lo ñi mu doon indi ba daan yëkk ni ñoom laa gis mu indi mm-hmm. kon xam nga ni waaj na mm-hmm. dégg nga parce que tamit mun nga dem ñaani fépp de mm-hmm. mais suñu borom mooy maye ndam de boo ñaa tamit waaj na ko yaa ngi may dégg sa waajaat ko. ñun dañoo fanaan ci stade bi dix huit jour non avant dix huit bi mu desee dix huit jour la ñu fanaan vingt et un parce que tey lii wër stade bi yëpp gàll diin mu ngi fa. ñun bu ñu buggee fanaan fa chaque jour caabi bi suñu loxo la ko teg soo nekkee léegi si biir stade bi taal téléphone léegi kër gi kër googu rek moo jàkkaarloog pelouse stade bi parce que yeneen kër yi montre bee leen mooy écran plat boobu teg noonu moo leen di baare mais am na kër bu féetee nii. foofu mooy kër diin léegi bu ñu yégee ba ci kaw dañ fa laal ay laa léegi képp ku taal téléphone dañuy xam ne am na ku nekk ci pelouse bi léegi nag boobu su demee ba combat bi jege am na ku nekk ci loose bi xam nga fa lay nekk soo taalee yaa ngi may dégg boo taalee du ñu ñëw di la dàq parce que bu ñu la dàqee li nga fa bëgg def doo ko def dañuy bàyyi ba nga dem dañuy xam point boo ko suul dañ koy sulli sulli nañ fa ay saaku cinquante kilos saaku ba mu fees léegi nag buñ ko sulee léegi tey xam nga tey buñ suñ suñ la mayul loolu suñ la mayul nga suul rek si suuru làmb ji dañ ñuy xaw a réeral ci yooyu suñu xel suñu xel yu bëri da ciy dem yaa ngi may dégg moo tax dañ lay bàyyi ba nga def ñu dindi ndànk parce que dama koo waxtaan ak booy te lépp Lamine Koor ak ak Issa ak waa marché Zeng yi jaaykatu gi prix prison yi ñooñu noonu tey lekku ñu naanuñu. d'accord Pape nga wax benn wax mu indi problème bu rëy géejawaay. Mhm. muy que nga ni Boy Niang actuellement li des mooy. <laughs> wax jooju fan nga ko teg. waaw xam a ñoom ñoom xam nga rek combat bi jeex na bëggatuma leen sànni xeer quoi. waaw mais dañuy waxtaan. Mhm. parce que wax jooju fan nga ko teg. waaw parce que soo gisee ma wax loolu. liiru Diane nee ba Boy ñaa wax rek la am si combat bi. Mhm. te boobu ba léegi génnul. waxoon naa ko am na benn baat nag bu mu ma wax nee naa ko yàlla ñu àtte dimanche moom liiru jaan nee naa ko man ak yow bokkuñu man drapeau Pikine laa yore moom drapeau Géejawaay mais plus orange moo ne ak wéev parce que man mbaru pikin yëpp laay topp. moom ku sama tontu moom tey lii la moo tax ma respecté jaw jaw ak ñi nga xamante ne dañoo bëgg Balla Gaye te yàlla tax. no day no parce que tey Makan Makan damay wax loolu Makan daf maa woo pour ma def ak émission biñ ne suba la samedi bi ITV e man ak liiru Diane bi ma ñëwee ne leen maa ngi ñëw mais après dama woo borom plateau bi ne ko xaaral ma dem sama kër sama koñ fekk am na fa ñaari comédien képp man Pikine waay bi ñu ma fekkee ma toog ak liiru Diane di def plateau muy wax may delloo mais Pikine xeeb ma. et pourtant moom day sonn ci. non waxuma non waxuma du sonn ci Balla Gaye de comédie lay def. ak poosam ak poosam defuma comédie de. Mhm. de du tudd du ma gërëm nit ci télé ndax xaalis. Mhm. mukk ci àdduna. Mhm. gis nga ñi ma tudd nii. man defaluñ ma dërëm. am na ku may tudd chaque jour ci tele bii. quatre ans gisuma ko. amatuma sax numéro am te saa yu ma dëkkee micro ma tudd turam quatre non dama ne la neew moom dafa am baat yu ma wax tey la mooy tontu bi man Pape Sarr drapeau Pikine laa yore seize écuries yëpp ku ci bëre maa ngi sa ginnaaw waaye man yoruma drapeau orange moo ne ak wéef mhm, loolu laa koy tontu. d'accord Pape sa revanche ak Lac de moom man dama koy ñaanal jàmm. mindeef bu taxaw ci suuf du taxati ma wax ko ñaaw. bu doon bëreeg Eumeu Sène wala bu doon bëreewaat ak. ñaa Niang bi laa jëm sama ngor kooku nit ku baax la erreur amoon na suñu diggante moom ba mu woo ma jéggalu ma ma dem ba ci Gaston pour uutal ko combat ñoom ñëpp ñu génn ñoom liiru jaan booy Lac de Guiers dafa war a am combat Lac de Guiers dafa war a am combat ñaari nit ñoo ci communiqué ci affaire Lac de muy Fifty Cent ak Ndiaga Dollé waaye man bi ma ci génnee di ko doxal man daxaw ma ci micro de damaa dem ba kër Gaston Gaston woo ko proposé ko ñetti adversaire Gaston mu may dégg bu nekkul du dégg wala makat nañu génn démentir ma maa taal sama xaalis jël sama taxi la dëggeer joxuma yëgul tinul li ma lay wax nii xam nga ay mbokk ay nijaayu la dëggeer xam nañ loolu te billaahi wal kitaab bi may def loolu déggantewuma ak la dëggeer téléphone maa dem xam ne ay moromam yëpp a ngi am combat moom mu def fi loo xamante ne néew na moromam di ko fa def dama ne la géejawaay moom xalifa général kulli mbëru géejawaay Balla Gaye la xalifa général kulli mbëru géejawaay Balla Gaye la mu neex nag ak mu naqari. dégg nga bu Gàmbi laay dem. la de Guiers moom non la de moom Lac de moom fi mu toll nii waaw comme mook ama neex na en tout cas daal la de Guiers moom amatuma droit di ko xas. d'accord tey combat ñu bari di ci xalab di Balla Gaye naan xam nga jeexal na na képp kuy doomu géejawaay di xalab Balla Gaye nit ku bon nga. man Pape Sarr maa ko ku bon nga képp kuy doomu géejawaay laa la wax képp koo xamante ne rek deretu géejawaay mu ngi daw sa yaram nga xas ma gis la nga xas Balla Gaye yow nit ku bon nga jaroo xool jaroo xam parce que lu nekk indil na la ko pour xam nga da dala dala daan indil ay ndam yu rëy xoola combat combat Yékini Balla Gaye gisuma combat bu ko ëpp coow mu indil leen ndam lii dugal géejawaay roi des arènes roi des arènes ku ko fa dugal nga génn di ko xaas képp ku ko xas rek nit ku bon nga. d' accord Pape yi nee nañ avance que. oh damay dog foofu déggoo da leen tontu démb journaliste yëpp Sénégal yëpp di wax Boy Niang Modou Lo déggoo papay Boy Niang moo wax ne Boy Niang euh, Modou Lo dafa signé contrat ak Ama Balde CNG libéré Ama Balde te kon Modou daa yor. combat mu Ama Balde te Ama Balde ak Boy ñaa ay frère lañu. na ko CNG libéré bu promoteur buggee rek bu mu leen tey combat boobu yàqu na Boy Niang mun na bëre Modou Lo mais kenn du ñu tasal suñu pikin bii ma koy wax Boy Niang di ko wax da di ko wax déggool bàyyi leen ba bo Ama Balde libéré woog Modou Lo ñu doogoo wax ci combat boobu loolu laay wax de waaw balaa nit ñi. parce que ku ma ci laaj dam koy leeral parce que dégool moo wax ma dégg Ama Baldé ak Modou Lo ñooy bëre si kaw Modou Lo duggal këyitam boobu mais waxuguñu fi mu toll nii Ama Baldé boo Modou Lo ak Boy Niang non non. d'accord <laughs> d'accord tey ban message ngay lancé Balla Gaye ci côté entourage am parce que bi ñu xoolee combat bi mu mel ni euh, comme li ngay wax sànq. Hmm. daanaka ñi ci nekk ñu ci ëpp affaire ambiance ak synap. Hmm. ak def naka su dul noonu. Hmm. di fecc ci géew bi. moo ëpp ci côté entourage bu Balla Gaye waaw xam nga tey gis naa fa ñett nit ñoo xamante ne tey ñu ngi ci géew bi folklore la ñu indi. Mm-hmm. indi wuñu gàllaaj folklore mm-hmm. wane wu surtout baa. Mm-hmm. non tey tey damaa am dëgg ci pëlu bombardier bi nee naa ko xamul dara mais ñi si des ñëpp waxuma borom kagul bi borom kagul bi kenn day moom xamul dara buy daanu nee na keroog bombardier am seen bombardier nee na li yàqal bombardier. biir këram la nekk xanaa bii bi mu indee Balla gay li yàqal Balla Gaye ci biir këram la jóge du wax de du génn wax de ba barke Seydina yàlla moo ma nee naa leen barke Rasulullah xamul dara ba man naa ko wax du ma ne du du mbër du ngemb mbër ba doo ngemb mbër indi ko muy bëreeg waa Pikine man nekk ànd ak mbër boobu nga daan ko xanaa keneen waaye ba de bokku si poptal la yor ak toj ay xaal di di nappaate kooku xoolal kooku bi ku ma gis mu àndal muy mbëru pikin nag bu dul mbëru pikin maa ngi si ginnaaw mbër boobu acca dañ ci dem dafa aay xamul dara waaw yow da doon woo ba ne la ay client la ñuy wut kenn du kebe ak buuba def si kot waa waaw déedéet kooku tiwaa borom kagul bi tiwaawoon la jóge dëkk kebe tiwaawoon la dëkk mu jàkkaarloo benn face à face bu neex moo amoon arène nationale mm-hmm. képp ku xam borom kagul bi xam ngeen ni bu amee six minutes trois minutes génn na géew bi yëkkati public bi dem yoonam waaye dafa def presque trente cinq minutes ci géew bi munul génn mais kenn du kebee ñu gis boucher tamit. non loolu folklore la folklore la def. indiwul làmb folklore la folklore la folklore la doon def dégg nga kooku folklore la ñooñu am na ñoo xamante ne tey su leen Balla Gaye daroon. bu ñu daloon Balla sama diggante yàlla du ma toog duma taxaw loolu folklore la. kon Balla Gaye ko kenn kiiw gu dama ne la. ñi war a yor ay bagaasam ñoo yorul bagaasam ñooñu ay folklore la ñuy def gis leen ma waaw di ut di ut ku ñu dóor. man utuma loolu de. man su ma àndeeg sama mbër sama bakkan laa ciy jaay. damay dal dama ne la bi muy tuus kenn raxuñu dam cee dal. tooñu ma kenn ñoom sànni nañ ma ay bidon ndox bidon yëpp laa naan sangoo ko bi may taxaw di dindi ba miini bidon yëpp bidon yi ñu yi ñu sànni yëpp maa ko sangoo naan ko loolu dara tamit yooyu buggu si am parce que waa Pikine ñoo ko njëkkee sax damay wax sama dëgg quoi bëgg naa tamit yii nii mun na sax yàq làmb suñu suñu suñu kaa ñoo ko njëkkee moo tax ñoom it ñu ñuy sànni man dégg nitu déggu laa dégg nga mhm. ñun ñoo ko njëkkee mhm. maa ngi leen koy wax nag bépp làmb bu fi amati yooyu bu mu ci amati parce que loolu du indi jàmm guy gi may ma rek dafa am lu am solo lu may wax du indi jàmm si mhm. kii bi dama ne la damaa am ndam ci kaw pël boobu dara ba Eumeu Sène Eumeu Sène di bëreeg Bombardier mu nekk am Eumeu Sène amul gàllaaj bu daan ji tey moo indi Balla Gaye dama ne la folklore lay def folklore maa ngi koy ñaan julo bu mag la julo julo bu mag la ma gis màggal Touba li muy jaay ci ay nag sama rakk moo koy fréquenté Aliou parce que Aliou suma dibiteri bu sali bi tu am nga am nga euh, fële ay déggoo ma ne la damay dem cëli bu bakar di jëndi xar bi may nekk boucher cëli Boubacar dama fa doon dem dama doon dem Sandiara mm-hmm. di dem Touba Toul mm-hmm. di dem Daara Jolof mm-hmm. man cubaleel laa dëkk sam papa di dama ne la jaaykatu nag bu mag la ba pare kuy dugal kuy dàq ay nag yu bëri la non du ma ko mbalaguma de li may ut si li li may wax nii bu nekkee amul mhm. billaahi wallaahi watalaay yàlla bu ma gis sama njëriñu doom. parce que ñu bari dañu wax ne comme andi na bombardier mu daan Eumeu Sène tey bu andee Balla Gaye mën naa daan Boy Niang. déedéet dafa ne dafa indi dafa indi bombardier mu daan Balla Gaye si kat si kaw ñaankatu bombardier. mu indi Eumeu Sène bombardier Eumeu Sène mu ñëw mu def mu génnee sorti ne li daan bombardier mu ngi koy yàqoo mu ngi yàqoo biir kër bombardier déggal bu baax li ma la wax de émission yi moom moo ko def mu ne Eumeu Sène amul gàllaaj bu daan bombardier du ma indi fii mbër ngemb mbër mbëru Pikine di ko daan tey mu ñëw boot Balla ñëw boo ñaa daan ko dama ne la kooku Balla gay dem na fi mu war a dem yëpp ay mbokkam yëpp ëmb nañ ko ñaanal ko wax dëgg yàlla mais kooku noonu da doon see film kooku da doon see film da doon see loolu man maa ko kooku daal xam naa ne xam naa ne moom si ñaankatu Balla gay yooyu non kooku non buuse buuse pare naa ci ay waxam folklore la def ci làmb ji mhm. uh-huh, da animateur la da doon animé mhm. mais indiwuñu indiwul làmb ñooñu d' accord. ñu mhm. mel ni ñu ngay wax. Mhm. mu jeex te am na taxaw di xaar. Mhm. waaw tey naa ngërëm mi moom gërëm li. tey gërëm waa Pikine waa Géejawaay laay ma saw. gërëm naa leen ba pare. kànji à part Kandji. <laughs> Kandji promoteur. waaw Tafa Kandji ak famille Kandji yëpp barki Seydina Mohamed pikin amuñu seen fay. yàlla na leen yàlla sàmm sàmm seen njaboot lépp loolu leen di ut. ci wàllu surtout Kandji promoteur si wàllu tabax boobu nga jëm maa ngi wax képp kuy sama nit nekk si diaspora bi bëgg sa kër yaa ngi demal nga gis si Kandji promoteur xam nga maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax moog Tafa Kandji père de Gaulle maire Anna booy ñaa wàccoo nga ak ñun kontaan nañu trop ak képp koo xamante ne tey yaa ngi doon fanaan kër booy ñang waa tali bu bees bi ri afia képp koo xamante ne tey yaa ngi secteur boobu maa ngi leen di gërëm di gërëm waa géejawaay yi nga xamante ne maa ngi leen di wax man Pape Sarr seen frère maa ngi leen di wax ngeen muñ seen champion ngeen yor jàpp leen ko de barki yaa rasuululaay géejawaay nag guddi toll nii def naa si ñëpp kot la joor maa leen di wax maa ko tudd fii di ngeen ko dégg comme fu Balla Gaye egg lajoor parce que xaw ma ko amul suma numéro mais li muy def moo a neex mën na fecc mën na bëre te champion la maa ngi wax képp koo xamante ne tey supporteru la joor nga chaque jour dama koy communiquer de Lat Dior Géejawaay na ngeen ko jàppale parce que champion la mbër bu ma neex la. waaw waaw non non man nañ ko jàppale ñoom ñëpp. nañ ko jàppale ñoom ñëpp xam nga may gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp di gërëm waa pikin yëpp di gërëm diaspora bi di gërëm nag képp koo xamante ne tey yaa ngi polisu Pikine ak polisu golf yaa ngi may dégg sama gars yi Sadbu xam nga xam nga sàmbu maa ngi lay gërëm Sambu bu polisu golf ak Cissé bu polisu golf. yéen ñëpp maa ngi di nuyu ak seen commissaire bi yëpp di nuyu commissaire baax mhm. bu ginnaaw raay moom fii la nekkoon Pikine mhm. ak paysiman yu nekk police pikin Pikine yëpp mhm. wax dëgg yàlla ñoom it jàpp nañ ci ak képp koo xamante ne tey yaa ngi sol tenue muy gendarme xam nga gendarme Diouf ah, ma ah, ah, Diouf bu are ñaay Diouf gendarme Diouf maa ngi koy nuyu di nuyu baay Fall bu dikk Baye Fall bu dikk maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax ak képp ku taxawoon tey suñu kaaraange ci stade bi ngay jéemi di gendarme